waaw ginnaaw ma sant yàlla ju surfil sant sama ñaar waajur di wax jër jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba di sant booy fi toog yëpp waa di sant mbër mi baara waaw ndax baara day son si man lépp lu ma xewle da ci teew barki seen Touba maa ngi koy gërëmaat bu baax a baax a baax waaw di nuyu di nuyu yëmbal gi yëpp waare farlaw be wa 205 campus Free Life Katia Bass benda bara Kër Massar ñep maa leen nuyu di leen fay non la demee. wa lu wala 205 cité 205 bi ki la manam ñun ñoo ñoo juddu fekk saay di bëre baara di bëre gaay kan baara 205 baara 205 wa ñun tamit manam ñu doon xamoon ñu doon foye lo xamanteni nekul lamb saay téye ñu saa ñu woo ba ñëw baara baara ñu woo ba ñëw ne ma Pathé Wou ne ma yow force da ngay bëre mu leen neex mu leen naqee dangay ngay bëre waaw léegi mbër ba voilà jeex na noonu la demee na coow mm-hmm. mm-hmm. làmb lan moo la gën a motivé lu ma gën a motivé ci làmb moom la ndax kii nii ay temps maanaam. benn baraag yëmbal foo toll kenn rek ngay dégg baare 205 baare 205 non baare ne ko mbër mu yàqu baare champion la ndaanaan la barki alxuraan karim billaay xam nga ñu koy topp nag ñu koy topp bët mu wooñu ne ñu pàcc bu yow da nga war a doon mbër barki alxuraan. man ya def naa quatre combats def. am naa am am naa waaye leer wax. combat loolu teguma nga si dara lu dul job bu xam nga sa sa sagu sama combat. ba 205 dama yee 5 heures du matin yow ñu dem géej bu ñu fa jógee dem saal ngoon 5 heures bi mu topp ma kar kar mbër jugal ñu dem contact. waaw waaw jàpp ne xaaya laa tu mooy loolu ak dal. waaw am na loolu tax loolu tax sama combat bi passé a ñëw teey toog si tànk yaa mu gën a xam. nga mel ni ku xaw a loolu nekkul stratégie ndax maanaam ñëpp ma ko wax balaa mu desee ñaari semaine booy ndawee xale maire yi ñëpp suñu ma conseil leneen may conseil mbër teel sa ñu ngir yàlla nga toog si tànk yi teey non nekkul fii sax mais xam nga gën a xam barki sëñ Touba non maanaam nekkul fit quoi maanaam bu soo gisee may doxee fugu du dara lu dul kii toog jëmu ji toog baara 205 barki alxuraan ay cinq heures matériel la may yee ñu jug dem géej ñu jugee fa mu demaat saal mu yen ma lu métti ñu jugee fa ñu demaat contact looloo tax chaque jour làmb maanaam su ma fa ñëwee mooy loolu daal man damay bëgg asalaamaaleykum rek mooy loolu mu jeex non non non barki alxuraan yombul barki Serigne Saliou yombul naa gis noonu la demee waaw man maanaam maanaam làmb man nekkul ni maanaam ah xoolal dama see ñëw pour am buzz dama see ñëw pour yaama ma gën a am pour siiw dama see jóg pour doon champion parce que sëñ Touba matu voilà noonu la demee matu. cent cinq noonu la demee nag quoi matu parce que sëñ waaw. waaw non noonu la demee maa ngi ñii maanaam depuis xale la depuis xale la ba léegi depuis ndaw waaw muy làmb muy maanaam muy làmb ak muy lépp daal barke sëñ Tuubaa billaay wala. ñu ma nee man si àdduna benn xaytu mbër laa am wala maanaam benn benn mbër laa am si idool ji muy toog jëmu ji toog barre 205 waaw donc kese barki sëñ Touba billaay wallaay matu ne leer laa lay wax waaw waaw ngi si kawam yaa ma gën a xam yow ndax booy bi keroog maam moom yaama ma gën kii na jaaxarloo nañ xam nga mu maa ngi mu seen ma naa man maa la mën maa la doole xam nga di wax ay wax non moom xale la pare am na doole barki sëñ Touba déggoo ma de maa mën maa ëpp doole wër na Serigne Touba gara garaaw laa la maa a maa doole barki sëñ Touba lu garaaw

may ànd moom ba dara du dara ba léegi sama mag la quoi sama lépp la lu mu xewle dañ siy teew maa moom dee rek moo ñuy tàqale incha allah bu neexee borom noonu la demee sant yàlla bu wér. waaye mu ndaw. mooy caat deux cent cinq ñu ngi si ñu ngi si kay di waaj waaw le 19 novembre moom soreetul billaay noppi nañ ñu ngi si gay ñu ngi si kawam am nañ combat baax G bi day xaar de. bon G bi du dara gis nañu ñu fi jaar gis nañ fi ñaa daaru non G bi day xaar de. بالله زياب لا يقار جزنا في نيوم الدارو جزنا في في ذا جانوار تنيوم نيب رو نيوم نيوم الدارو لين بابي نو نو زياب لا لي بالله زياب لا يقار زياب لقى واحد مواد لقى مواد دويل نخوا يوم نيجي كام دواج بين البراغ ملك كمسار غايب عن واج بنيه رأي خلف متدرج إن شاء الله بنيه خبرهم non noonu la demee day ñëw rek xool fu mu tëdd. at bu dee xeex fii la buujoo chaque jour dañuy xeex kenn ñu fay. Ah. waaw mbër boo ko sax mu xeex. Ah. billaahi. bu yàq la <laughs> noonu la demee matu. nuyu ñu ngi delloo nuyu waaw ñu ngi am jàmm am tawféex waaw ñu ngi sant wér waaw noonu la demee ndeysaan billaay waaw bër bi borom baax la champion la am na jom am na folo si lu muy def am na ci fayda ñu ngi woo waa yëmbal yëpp nañ gën taxaw ko may ko doole benn baraak malika àll ñaax buun mbabar ga bàyyi ñu fer ñu ngi woo ñëpp ci kombaa bi ñew jappalé ko tékolo ndaw la te bëgg na mi def te gëm nako ay xalé lañ mom ak ay moromam yalla def na ñom ma lañ tédd ci bëri dëgg la wër ñu jox mo ciir ba mat mo jël ciir tam jëlal leen ko mais ko am jom la ci liggéeyam bu amé combat da koy jox akam bu mat ci liggéey balaa nga xamone tay nga fekk ñu dirne ba ñuy liggéey loko ko da kay ték am jom jooju waaw xalé bu nangu la te joxé na ciir waaw motax lu am dañ ci takrib non rek la démé di ñaanu ñaanal suñu borom defal ko ndam lu sedd guuy ta lamb inshallah moo tax bu ñëwee incha allah le 19 novembre. waaw si di cité bi ngay gis. Ah. bi ngay gis jour boobu ak bi gis bii nii. du benn du bokk force. du bokk laa la wax cité bii cité boobu di ñëw ak bii nii du bokk di nga ko xool nga ne kii si cité bu ma doon defal émission la incha allah. Eh. laamu ji dina si tegu coono ju métti métti métti wallaahi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam eh. te am nañ si yaqin incha allah gée bi day daal suuf keroog nag ñu ngi génn ñu ngi jéem a doole dañuy jéem a tegal bande bu ñu di si ses te xamuñ ñun ay ragal mbooloo lañ dañ leen affronté ba mujj sax yéemu ñoom barki alxuraan karim nee naa nag nax ngeen ñu signature boobu mais bu ñu amaatee jàkkaarloo ñoom lu ñu mën a waaj nañ ko waaj te xam ne ñun dinañ ñëw ak doole wallaahi barki alxuraan ñoom xam nañ lool billaahi wallaahi te ñu leen may dërëm dërëm barki sëñ Fallou Mbacke billaahi aja gaynde waaw mat déggoo ma de man ñaan li may ñaan coj sama nen dox ci kaw maa mën maa ëpp doole barki sëñ Tuuba ma matu billaahi g bi déggoo ma de jour ja maay ñëw fecc mu neex maay bëre mu neex maa koy ñëw daan nànk barki maam Cheikh Rafaal mm-hmm. mm-hmm. dëgg la ñu bëri dañoo bëgg a bëri ak yow. yow bu ñu bëgg nga wàcc. non loolu am na. ndax ku ci am na boo paree gisee bi moom adversaire yi lay xaar. naaj trop trop trop trop. moo tax naa la wax dëgg Baba Jaxal Baba dafa sëñ Touba. Eh, waaw eh, eh, am na de. billaahi wallaahi. bu tax bi. ah. do génn suñu diggante man ñaan li ñaan toj sama nen dox ci kawam déggoo ma nee naa la maa mën maa ëpp doole ba. naa ma xanaa. waaw. nga ne ma ne la Zé day xaar déggoo ma de dama toj sama nen ñaan li may ñaan déggoo ma làmb ja maay mu neex may bëri mu neex man maa koy daan nànk barki sëñ Touba maa mun maa doon barki sëñ Touba yaa wa la demee lépp lépp barki sëñ dinga toog dinga toog Sida rek la ñuy toog dinga toog. ayca bala nga tàggatoo joxal ma si góob ñu ñëw ñu tàggat ko. yëpp si góob. ana nga. ayca gars yi. gars yi jëlal ñaan yi. ayca. Aja naka mu si loo leen ne. yéen a ngi si jàmm bu baax. maa ngi si waaw combat bi di ko waaj ak li mu doon comme combat bi noo ko waajee rek. non garaaw la boobu dañ koy. non dañ koy leb sax lii loolu noonu si góob bi dañ koy leb. mais gis nga kii dafa jot dafa jot ñu xam ko si làmb barki sëñ Bamba mbër moomu daa umpale xamuñu moo tax mu jël ñu te dafa jot ñu wane suñu bopp si làmb ñëpp a koy xaar instant ñëpp ay xam ñëpp a bëgg a xam Siteu bi ba xam lu mu mënoon koy mën ba léegi waa mais fu ñu dëkkee moom métti amuñu jàppale amuñu dërëm dangay ngay bëre ji sax pour ñu jëndal la ticket problème la te ñii dañoo bëgg làmb amuñu lu dul làmb ñëpp leen xam nag ay baaba jaxal bëri leen làmb ji àggul bi la zer bu Malika bëri nañ ba sonn ñoom ñoo yàq làmb ji sinon dañoo ko daan indi suñ tournoi fii. waaw may waa sama mag Mor Diallo di ko wax làmbam ji làmbam la dasee war a baax a baax Pape Bay koy woo bu baax a baax a baax mu ñëw jàpp si combat bi combat bi combat la di eh, grand Assane maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si combat bi làmbam ji làmbam la xam di si wax sama mag Nogay jàlloo sama Nogay Diallo day sonn ci man barki alxuraan maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si làmb ji bu baax a baax. waaw noonu la demee di gërëm Mor Mbaye tamit maa ngi koy waat ci làmb ji bu baax a baax a baax ne ne ko mu jë sama yaay maa ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko ba ci kanama ak kanam am ma fayam seexu seeri toolam maa ngi lay woo si combat bi sama nit la bel daa Serigne Fat Badji kooku waaw mooy loolu sama waay la sama mag la sama lépp la waaw ah. Fallou tamit waaw Fallou borom TikTok bi waaw waaw maa ngi koy béggewaat bu baax a baax a baax. xam nga te te waaw waaw waaw di woo sama mag Cobra ba Morok di woo sama papa Tafa Mbaye kooku kooku maanaam kooku nekk sama mag sama papa la Tafa Mbaye borom dëru yi Farba booy Farba maa ngi lay woo nga ñëw jàpp si combat bu baax a baax a baax borom état li xam nga di woowaat waa tamit maa ngi leen di woowaat waa 205 waa Fànn xam nga waa mafia noble bi mafia saisie bi danger bu ndaw bi buubaa maa ko ñaanal yàlla may ko Sa Thiès tey day bëri maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam bi gën si moom barke Serigne Diop de tamit am na combat maa ngi ñaanal yàlla may ko ndam ak Fils de Malo ñëpp daal bépp mbër bu dëkk yëmbal ba am combat rek maa lay ñaanal waaw maa ngi gërëm laay kaaw si góori kulus yow doo ngaaxa laay kaaw man si góori kulus rek laay topp topp ma keneen waaw waaw dégg ma di gërëm waaw te tamit waaw waaw di nuyu ñaar ñi quoi di nuyu ku si dof bu sita pap daam nekk fi quoi ca caabi da koo féete ginnaaw maa ngi koy ñaan mu génn bu baax a baax ak manu ak waa ak max wilina ñoom ñëpp ñu nekk si jël maa leen ñaanal suñ suñ borom génnal leen fa barke alxuraan maa ngi sant ñi ñëpp nag di gërëm ñëpp yaa ma gën a waaw noonu la demee maam jaara bëy maam jaara bëy tamit maam jaara bëy maam jaara bëy ak baay bàcc maam jaare boy bàyyi bàcc beneen côté waaw sama waa écrit nag ñoom V Modlo xam nga ñom Do ñoom De Ouskara waaw ñoom ñëpp maa leen gërëm samay kosu ñoom ñëpp maa leen gërëm combat bi di si woo waay yëmbal yëpp di si woo waay yëmbal yéen a xool ñu ñëw jàppale ma. barki sëñ Touba Matu waaw. bi si turandoom la demee nag quoi. waaw noonu la demee. waaw yow mooy loolu yow amal jaamu rek. man waaw noonu la deme di woo ñëpp nag yëmbal gépp ñu génn doole seen mbër. waaw xam ne bis boobu suñu bis la quoi. di gërëmaat Fallou Fallou bu Sida 205 kooku sama deret la sama raxal la di ko ñaanal di gërëm ñëpp tiktok bi ñuy bëggee ñëpp waal di bëggee waal yëmbal gépp daal ñu waaj rek noonu la demee cek cek di Poul Papa Tall ñu ngi koy bëggee baax a baax di ñaanal suñu mag Gris 205 yàlla na am combat ren yàlla suturaal ko may ko ndam ndax mooy suñu champion di ñaanal ñëpp di ñaanal Diop de di ñaanal Sages ak fils de Malaw ñuy bëggee waat yëmbal gépp daal ak buubaa buubaa waaw keroog nag maa ngi wax gars yi ñuy génn ñuy jéem a tooñ quoi booy caara yi te xamu ñu fii coow fii la buujoo quoi ñun dañuy coow te kenn ñu fay bilaahi mais dañuy ñëw di leen wax ni le 19 nañ ñëw rek xool fi ñu tëdd quoi noonu la demee nag di woo ñëpp di woo waa noowul suko bi danger bi waaw di gërëm matu nag matu yow kenn nga si ñun quoi di la ñaanal rek nga yor ay télé télé billaay noonu la demee nag di gërëm Nogay Diallo Nogay Diallo day sonn si ñun barki yàlla rublement dañuy ñëw sa di yëkkati xaalis mu naan non non yéen a ma di gërëm nag Ada Fass jarbaatu la quoi Ada Fass junior mi ngi ñëw naka gars yi xaar kooku jot baatu mbër la noonu waaw Mor Diallo Sine am ko di ko woo baax a baax di ñaanal fi di ñaanal lës nag gars yi di ñaanal lës alaaji waaw ñu ñaan alaaji bu baax ak Ismaïla ah, mbëri ak Ibrahima ñaanal ñëpp ay Aïda ñoom ñëpp woo ñëpp daal ma Hesita Oma Mawalani Malabage Hesita Oma Mawalani Malabage Mandamala Baga Baga Damala si làmb ji ñun dañoo soxla ku ñu jàppale amaana mbër dafa mëneewul wax sax moo tax muy demee nii mais ñun yëmbal ñëpp leen yemale mbër yëpp leen yemale non xam nga rek dafa yorul xoro mbër lool dinañ ko dindi léegi léegi si moom barki yàlla xam nga rek français bu français boo xam ne bandi du ko yab la bu xoolal visage bi rek nga kii mooy loolu noonu mais xale loolu dañ koy léegi léegi si moom mais waaye mba la ñuy woo si làmb ji woo ay see yëpp bàyyiwuñu kenn ku lim juum nag amaana mënuñoo dem fekk ñëpp mais ku si nekk soxla nañ sa jàppale ndax lii bëri si mbartal la puus mu dem puusul mu dem waaw amul ay see buy nekk yëmbal ñu bàyyi la nag woo nañ ñëpp waa bokkalaat sanc bi neex la déggoo cosaan a ah bàyyiwuñu kenn laxale bàyyiwuñu kenn benn baraak ASC Manko suñu xol la nekk kooku ak Siteu lu mu nekkee suñu xol noonu la ASC bi nekkee suñu xol waaw ndax yàlla moo ñu booleeg ñoom voilà di wax nag Siteu rek la ñuy topp di ko topp di ko topp ah. rek la ñuy topp yëmbal fii day gën neex kii dañuy topp ah. di ko ah. rek la ñuy topp ku am sa leneen na nga ko téye eh Siteu rek la ñuy topp di nga topp di nga topp. Eh, si ne rek la eh, si ne rek la ñuy topp di nga topp di nga eh, moom lii mënoon na bañ a sax mais moom rek la ñuy topp barke sëñ Bamba di bëggee suñu mbër baara. mi ngi nere ñun barke sëñ Bamba def na lu ne si mbabat <laughs> daa am lu tax rek daa am lu ko téye te loolu dindi nañ ko ba mu set witti witti mbapato mbapat toj na ko barki sëñ Bamba parcelle amul ku ko fa xamul amul ku mu daanul mbapat billaay wallaay mais avan ñoo dugg daa am lu ñu woon mais loolu faxas nañ ko ba mu set am na ay combat lamb sax arène mais nu mu demee la mais léegi léegi léegi mu wane waat boppam wan gars yi fu mu fu mu nekkoon ba léegi jógee ko incha allah voilà noonu la demee ñu xaar ko barki sëñ Bamba yàquwul de te du mës a yàqu lolou faxas ne ko bam set. billahi merci way Adja kontaan nañ ci yéen trop. waaw billaay maa ngi leen di fay de maa ngi delloo siyaar waaw billaahi pare nañ de di wax supporter rek gaa yëpp pare nañ xam nga di woowaat ñëpp di woowaa yëmbal ñëpp waat waa mafia 205 bi ñëpp pare nañ José beeg yëpp ak mafia raxasu bi ñëpp pare nañ waaw dañuy billaahi di raxasu rek billaahi mooy mafia ñu yore lekk yi waaw di wax nag mbër pare na moom di di di ñaan gars yi jàppale waat ko rek waaw nax mbër rek lañ am ñun kii lañu am si tëb 205 moom lañuy moom rek lañuy topp topp ñu keneen na ci gars yi jàpp nag ñëpp pare ndax instant yi moom entraîné na lu li ko waroon yëpp si làmb ji def nañ ko ñun nag ñoo des nañ ci gën a mobiliser di ñaan ay kaar rek gars yi jàpp ci jàppale si tike yi waaw ak monsieur le maire bi nga xam ne moom lañ am tamit ñoo ngi koy woo di si woo ñoom Mor mbay Assane fay ñëpp waaw di wax ñu jàpp si bu baax a baax a baax waaw ak Pape Bey waaw na si ñëpp jàpp ndax mbër lañ am quoi dooleel ko làmb ji victoire lañ ci bëgg te instant làmb ji moo ñu mën a taal na ci gars yi jàpp mbër tamit jàppale ci mooy loolu noonu deret bi tuuru moo gën drapeau bi cuubu voilà foofu laay wàccee kàddu yi. Mm. noonu la demee waaw may wax sama mag Mor Diallo. di di ko wax yow mu ñëwaat jàpp si combat baax baax laam la laamu ji laamam la. waaw waaw di woo Pape Boye da ko woo si laamu ji bu baax Pape Boye combat bi sa combat jàpp si bu baax a baax a baax xam nga. waaw di gërëm ay Mor Mbuub tamit da ko woo si laamu ji. nekkum ñëw jàpp si bu baax a baax. grand aatu président Manko di ko woo si làmb ji ah Mbaw maa ngi woo si làmb ji bu baax a baax a baax xam nga di di gërëm ñëpp ah waaw di gërëm waa xam tamit waaw yaa di woo waa Neexle di woo waa Bokkalaat waa ànd jiboo may ma waa Lakale waa sanc bi sancaan diisoo déggoo far Farba cosaan ñoom ñëpp maa leen woo si làmb ji waa di woo mango bi ma dëkk ak Daaru Njaago noonu la demee waa di waa te tamit te làmb tamit si waar waa 205. di si waar waa 205 waaw di woo ñëpp di woo waa Campos di woo Mafia Sukk bi.